bismillah laay wax indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi ñu xëyee tey jii ci altine ji ñu tàmbale ko le soleil la soleil yéenekaay nag la mu xamle ci xibaar yi rek moo di état bu Sénégal jël na ay mesures yu urgente maanaam ubbi ab l'enquête yoo xam ni day fas yéene xamle ana lan moo indi jëye ba jot am ca parc Lambaye waaye itam kii di Abdoulaye Timbo di maire bu Pikine moom la mu xamle rek ci la soleil yéenekaay moo di du bàyyi benn yoon boobu la jëf di dem dina ci indi lépp loo xamante ni ay leeral la l'évidence yéenekaay yéenekaay moom it dikk ak ñun ci li nga xamante ni moo di lakk bu metti bu amoon fële ca pàkk làmbaay waaye fa mu fëlee rek moo di coupure courant bi nga xamante ni boobu la lakk indi na ko Senelec daal na ŋàññi ci jëfam ji nga xamante ni dafa jàpp ni jëf bu dëppoowul ak professionnalisme la lu ko waral rek moo di ay million yi millions la ci ay entreprises ñàkk lu waral lu ni mel moo di coupure yi nga xamante ni Senelec da ko imposé loolu la ñu l'évidence yéenekaay xamale ci biir xëtam bu njëkk bi li bi nga xamante te ni am na Libye Macky Sall tape du poing sur la table lii na réew mi quotidien xëy ak ñun maanaam Macky Sall mer na ba futtu ci wàllum esclavage bi nga xamante ni mi ngi am fële ca Libye li mu xamle daal moo di gouvernement libien bi ubbi na ab l'enquête te képp ku loxoom dugg ci yile jëf ju ñaaw rek danga ko layoo ak moom ñi desandi ba tey ci yooyu la jëf xewee ca libi bila yoon nag Sidiki Kaba moo ci yëy yàbbi wax na ci wàllum relation mag Sénégal ak Libye waaye itam xam leen ni ay voisins lañu indi na itam ay leeral ci biir l'observateur ñu ñëw ak yéen ci tribune mi nga xamante ni la mu xëyee ak yéeni kaayam moo di Macky Sall ak ab Ablaye Wade lu mu duppee daal seen combat moo di combat de coq maanaam xeexu ginaar lan moo waral mu tuddee ko combat de coq ku ko bëgg xam rek ubbil tribune yéeni kaay Les Échos ñëw ñun ci biir mu tiis te doy waar lu ñuy woowee scandale bi nga xam ni moo xew ci armée nationale mu di ay nit yoo xamante ni dañuy ñàkk seen bakkan ndax anam yuñ doon leen formé police ak gendarmerie daal ubbi nañ ci ab enquête ndax ñaari gune ñoo ñàkk seen bakken ci diggante ñeenti fan le quotidien yéenekaay xool ko jàkkaarloog mbirum aéroport Blaise Diagne maanaam AIBD aéroport ba tijjeegul avion naawagul waaye mel na ni zone de turbulence am na de lu ko waral moo di ña féetee ca delta ba ñoom ñooy menacé ni dañoo fas yéene boycotté aéroport bu Diass jàpp ne la ca bëri ca aéroport ba dañ ko jox ay français loolu nag la ñu xamle ci le quotidien yéenekaay yëral li nga xam ni moo di 24 heures génn na Sénégal dem bi que mu gën a fësal ci xëtam bu njëkk moo di aadama Barrow mi nga xamante ni moom la ñu jàpp daal moo di mi nga ca tànku Yaya jàmme de loolu la 24 heures xamle gannaaw ba ñu seetloo ni wàllum ma neex a fal sa mbokk ak désordre daal lañu seetlu ci gouvernement bu aadama Barrow bi lu ni mel moo waral 24 heures ne Adama Barrow mii di mi ngi ci tànku Yaya Jammeh médicament contrefait yañ a jàppoon ca yoonub Touba ba pareeguñ ca ba tey de ndax l'enquête ba la mu xamle rek moo di ab mafia la baarasila mi nga xamante ni moo di cerveau bi jàpp nañ ko ay boori juróomi waxtu fële ca Ponti waaye itam commerçant bi nga xamante ni moom moo investir woon juróomi téeméeri million ci boobilee opération moom nag fa mu daw làkku rek moo di ca kër sëriñam la ca des ku ko bëgg a xam yëral libération yéenekaay ngir am ca lu la leer ñu ñëw ak yéen ci vox populi la mu ñu indil ci xëtu yéenekaay bi moo di kàddu Pape Malick Sy yor kàddu Tiwaawan Pape Malick Sy wax na te la mu wax rek moo di mukk du ñu jàppale benn yoon leader politique boo xamante ni dafa ñeme nëbbatu maanaam lépp lu muy def da koy nëbb ana kan la cay jéem a waxal ku ko bëgg a xam yëral vox populi ñu ñëw ak yéen ca stade yéenekaay la mu gën a fësal moo di kàddu Matar Ba yi di jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram di wax ne xiim bi FIFA joxe nañ ko delloo ci réew wum Sénégal ñu ñëw ak yéen ci suñu làmb suñu làmb nag mu gën a fësal ci xëtam bu njëkk moo di Sa Thiès Sa ñu duppee ko machine bu yees bi nga xamante ni moom la ñu war a gañee lu waral loolu moo di Sa Thiès am na fukki victoire ak ñett ci diggante juróom-ñetti at tey téeméer boo jël rek juróom-ñeent fukki ak ñaar am na ko ci ndam loolu moo waral nag ñu ne Sa Thiès mi mel na ni moo di grolo bi nga xam ni ku ne war na ko yóotu ngir daan ko enquête yéenekaay ñëweek ñun ci lu doy waar moo di Dakar de lay wax ni amul duus Dakar amul duus loolu de la enquête yéenekaay xëyee tey Dakar bu amul duus moo ku soxla sa bopp fan ngay jëm loolu nag la enquête yéenekaay xëyee tey di xam le ni miiru dakaar yi salte nañ sonn nañ ndax fu waay tourné rek boo soxlaa sa bopp fa nga jëm rek wàccee fa sa coono lu ni mel nag lu ko waral moo di amul benn toilette publique boo xam ne teg nañ ko ci mbedd ndakaaru yi may laaj bu ñëpp wàccee seen coono ci mbedd yi ana fu mbedd yi jëm